seen soppe imam Saleh Niang bu Dabakh Malick moo delsiwaat di ànd ak mbokki jullit yi ci ñaan gii ñaan gii ku koy saxoo inchaa allahu kenn du la mën a wàll feebar te doo dee ci accident kenn du la agressé te journée boo ko waxe journée boobu doo ci dajeek lu lay lor buy tëdd wax ko it daa yeewoog jàmm te moo di booy génn sa kër nga génnaale ak njàpp bala ngay génn kër gi nga jàng fatiha bismillahi arrahmani arrahim alhamdu lillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata alladina anamta alayhim xayri almaxdubi alayhim wala ddallin amin nga jàng suuratul ixlaas bismillahi arrahmani arrahimi qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuan ahad nga wax bismillahi allazi laa yadurru maa ismihi shay'un fi l ardi wala fi samaai wa huwa samiu alalim nga jàng falaqi bismillahi arrahmani arrahim xul audu bi rabbil falaqi min charri ma xalaqa wa min charri xaasiqin ida waxaba wa min charri nafaadaati fi l uqadi wa min charri xaasidin isaa xasada nga wax bismillahi allazi laa yadurru maca ismihi shay'un fi l ardi wala fi samaai wa huwa samiu alalim nga jàng naa si bismillahi arrahmani arrahim xul audu bi rabbi nnaasi maliki nnaasi ilahi nnaasi min charri lwaswaasi alxannaasi allazi yuwaswisu fi suduri nnaasi min aljinnati wannaasi bismillahi allazi laa yadurru maca ismihi shay'un fi lardi wala fi samaai wa huwa alsamiu alalim nga teg ci lii bi surati nnaasi wa suuratil falax nauudu min charri jamii ma xalax bi suurati nnaasi wa suuratil falax nauudu min charri jamii ma xalax ñetti yoon nga ëf ko ci sa yaram waxuma la corona waaye yàlla dana la musal ci accident soo am leen teeg yoon soo ko waxee mucc ku ko wax daal mucc ku ko wax ci bëccëg daa mucc ca bëccëg ba ku ko wax ci guddi daa mucc tabaarakallahu ca guddi ga kon nag nañu ko saxoo ndax ñaan mooy ngànnaay yu jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaan mooy ngànnaay yu jullit te situation bii ñu toll kenn mënu ci musle ku dul yàlla kon yàlla mi xam ni mooy musle yàlla nañu musal soo amee ku jàng alquraan it mu bindal la min xitmiirin ci sa digg gannaaw incha allahu kenn du la mën a wàll feebar wala ñu bindal la suuratul ixlaas saadu samat ga nga yaatal ko dugal ci sa sa sa dugal ci sa bopp ak sa njaboot lakk ko foo xam ni yow rek a koy xam incha allahu corona wala lu dul korona dana xew ba xew wi mais incha allahu taala mucc rek ngay def ngeen àndoon ak seen mbokk oustaz Saalih Niang daañu ñaanit ci lépp lu baax ku bëgg a jokkoo ñun mën nga wacc 77 060 96 70 77 060 96 70 wala 77 547 22 80 yal na yàlla muccal jaam yépp ci barke sallallahu alayhi wa sallama wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bismillahi rahmani rahim alhamdulillah